Eh, kontaan nelaw ma fan yi yëpp maa ngi toog rek te ki maa ngi feebar waaye maa ngi toog ki bi maa ngi toog ki lal bi di ñaan suñu borom rek yàlla may ñu waaw. mais mais nu mu tudd match bi ko dund ndax match bi wala da am da nga àndoon ak tiit wala si. tiituma tiituma tiituma maa ngi jàpp yàlla rek benn la tiituma de yàlla la tey benn rek tiituma. Ah, waaw tiituma de maa ngi tey yàlla rek benn ma ne yàlla bu neexee yàlla yàlla na ko ko may. waaw dëkk kan? ya, kan? kan? bi yëpp ñu ngi ko ñaanal kero fii jumaa bi fii kero dañu dañu dañu nekk di ñaan di ñaan di ñaan ba ba ba guddi ba waxtu bi ñu ngi ñaan fi jàkk jumaa ji ñëpp a ngi ko ñaanal dëkk bi fii fu ko doon ñaanal amul waaw suñu kande bi fa mu tabarkal macha allah ki ñoom bu ñu buñ ko waxee dafay des ki ñoom yaa ngi dëgg lu ma wax na des ki ñoom parce que nit boo defee sa xol bu set ñoo ñëw di la waxaat dara day dellu ki yoom Aliou Cissé ñun mënuñu dara gannaaw gërëm ko ñun ñoo jur yaayam waaye gannaaw gërëm ko sant yàlla rek moo nekk suñu diggante moom waaw ñu ko ñaanal bu baax a baax yaayam tam bàyyi ko ki ñun ñoo ko ñun ñu yaayam yaayam ñun ñoo jur yaayam moom Aliou Cissé ñun ñoo ko yar ñun maamam ñoo ko yar sama wujjee bu gaañu noonu moo ko yar waaw dégg naa loolu sax sant yàlla nañu trop ci moom bu demee football bu mu nekkee xale suñu suñu eh, toggee añ bi ba ñor ñu ko bëggee yekk sama wujj bi Faat Jallo mu ko yàgg mu wut mu dem yore bant bi moo Aliou Cissé moo dooñoo añam sama borom kenn c'était la yekkal añ bi ñu lekka mu ne ko du ko yekkat Aliou Cissé tan ko ñëw duñu yekk añ bi waaw moo tax bu mu lu nekk la ko defal ci déjam bi waaw ñu sant na yàlla de ñu ko gërëm Aliou Cissé lu ñu def ñu ko gërëm bu baax a baax ku wax ne na ku ko gërëm mu tànk ku wax leneen lu dul baax kay dina des ki yow na def ki borom xana mbekté rek mbekté rek mbekté rek comme mom lañ doon ñaan yalla defal nañu ko yegg be demi final wax dëgg yalla amuñu dara du mbekté rek santa yalla di remercier sénégalais yépp ñepp a japon ci ñaan bi muy musulman catholique païen ñepp a japp ci ñaan bi ñepp content nañ té ñi ngi ñaan encore ñu dem ba final té bu ñu yeggee bi final yalla may ñu ndam ñu yokk bu fi Casamance fété ko fi ñun ñepp dundé xana mbekté du tax ma ne mbégte parce que luñ ko doon critiquer yëpp moom mu ngi ko doon muñ ay mbokkam ñu ngi ko doon muñ waaw parce que xam nañ rek ku bëgg a avancer rek foog nga muñ comme yàlla def na ñu muñ ko muñ bi muñ nañ ko bañ toll fii dañu war a continuer di muñ moom it mu continuer di muñ bu ko defee Sénégal yëpp bokk ànd ak moom am ndam waaw. dama koy ñaan bu fexe moog staff bu mu nekkal ñu fexe déggoo. doon benn fexe déggoo doon benn te Sénégal yëpp bokk ñaan ñaanal équipe bi ñaanal équipe bi du Aliou Cissé la ñuy ñaanal mais Sénégal la ñuy ñaanal bu ko defee ñu amee ndam ndam bi su ñu lay ñëw ñun Sénégalais ñun ñëpp ñuy bokk am bokk am ndam bi waaw. Ah, di sant yàlla di julli si yonent bi rek di wax alhamdulilah rabbil alamin ndam li liñ doon ñaan yàlla yàlla may nañu ko. kon ñuy sant yàlla bu baax a baax di julli si yonent bi rek encore waaw di xaar final bi yàlla may ñu ndam tamit comme bii rek waaw. daf may metti ndax des fois ñu saaga ko saaga yoo xam ne duma neex mais nag damay bàyyi lépp rek mu sedd. xam ne si kii bu mu nekk la rek liggéey bu mu nekk la dina dégg lu ko neex du la dégg li ko naqar liggéey moo mel noonu